directeur de l'emploi ndax dégg naa gis naa li nga xam ni mi ngi koy jàppale entreprise yi nekk Jurbel waaye di ko jàppale aussi entreprise yi nekk ci biir Sénégal yépp teedeel li nga xam ni le directeur de l'emploi daf na ko mu nekk loo xam ni da ko daf ci ndigalu monsieur le ministre Dame Diop loolu lépp ñu daf ko ci gis-gisu président Macky Sall kon gàccee ngaalaama moo Modou Fall nga xamal ni Pape Modou Fall kontaan nañ ci liggéeyam gis nañ ni muy tourner biir Sénégal gis na ni itam li nga xam ni mooy convention état employeur bi nga xam ni dafa doon nelaw ndax loolu moo doon permettre direction de l'emploi fonds yi mu am mu mun ko génnee pour jàppale entreprise yi kon Pape Modou Fall mention spéciale ndax Sénégal ñun ñëpp ñun ñoo ko bokk Sénégal kenn mënu ko xar ñaar li am solo yi bu ñu jëlee sunu xam-xam jël sunu ay xalaat orienté ko ci nan la ñuy gën a encourager ndaw ñi orienté ko ci nan la ñuy gën a jubalee ndaw ñi bu boobaa li nga xam ni bëgg nañ ko ci liggéey yàlla mën nañu ko defaral